Thank you. asalaamaaleykum wa rahmatullah tey ñu ñëwaat fi euh, di wër di def reportage biir bi tuwaawoon ci gàmmu gi ñu ngi ci veyu gàmmu gi nag di ñëw fii kër xalif général euh, des Tidianes sëñ Mbaye sëñ Babacar Sy donc mu ngi nii mm, njaboot gaa ngi nii taalibe yaa ngi nii di dem di ran pour gis ko pour ziar ko donc euh, fii ñu ngi ci këram naka dugg nañ ci waañ bi sànq. Aïda euh, di soxna si xalif bi sëñ Babacar Sy Mansour euh, waañ bi ni muy demee gàmmu gaa ngi ñëw suba la ñuy dëdmal gàmmu gi nan ngeen di nekkee ak togg yeeg yooyu noonu. xanaa ñëw rek jàpp ci liggéey bi rek xam ni taalibe lañu te taalibe moom tër bii rek moo ko war tabaarkalla macha allah ba nu fi dalee ñëw booba yàgg na. booba yaayam ngir dund booba lan fi ne woon ba léegi ak maam Abdou fa tabaarkàlla amuñu fi lu naqadi fa tabaarkàlla lépp ngir dox dañuy ñaan ka na yàlla jàppale na ko yàlla yàggal ci xalifa bi si daraja yonent bi la ñuy ñaan. soxna Aida doomu maam Abdou Aziz Sy lan la leen di jàppalee ci waañ bi. lu mu nuy jàppalee ci moom du xaar nu di ko laaj lu nu koy jàppale moom mooy xool li nga xam ne war nañu ko def si waañ mu indi ko nu tabaar fa kàlla lépp sotti incha allah bu soobee yàlla. ñaata fan ngeen fiy toog di togg. amul bis waa soxna Ayda si la bu sëñ Babacar si Mansour soxna Ayda alaaji Abdooy baayam xalifa général bi fi jógee soxna Faat Ba Amet mooy yaayam sunu waañ bi nag amul waañu jour waañu pour toujours la du waañu gàmm de kër Ayda si amuñu waañu gàmm gàmm ak budul gàmm toujours nii rek la ndax tubaar fakkaal la këru wàccuwaay la te def nañ ko këru wàccuwaay du gàmm rek nag la ñuy la ñuy bernde bis bu ne ñu ngi ci togg ak yàq ak bernde xalifa bi ñu di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam yàlla bàyyi ko ci sunu kanam te la femme gi yàgg te ànd wér lool bàyyi ko njabootam ak sama njaboot seex si Sidi Hadj Malick yi fi des yëpp yàlla guddal seen i fan wéral seen i cër ndax nag subaar fakkaal la lépp seen bàyyi la lépp sama maam El la ndax moo nu wutal bis bi gën ci bis yi ñu di ko màggal kon bu ay njabootam sant yàlla di julli ci yonent bu tedd ba ci Medinatul Munawwar lépp ñu fi am yàlla na ko suñu sëriñ yi teewe seddu cër na ñun taalibe yi ak taalibe rek. liggéey bi nu muy demee est-ce ñaata ngeen fii ak togg bi nu muy dem. fii liggéey bi du metti parce que kenn ku nekk boo ñëwee di liggéey xërte ngay ñëwee ak yéene boo ñëwee nag di liggéey ak yéene xam nga loo def doo ko yëg te liggéey bi mettiwul ndax ki ñuy liggéeyal jar naa liggéeya yonent bee mel noonu te kenn du sonn ci moom te ko liggéeyal fayu borom salaire boo ko liggéeyee fayu te ki ñuy liggéeyal borom salaire la kon du ñu sonn fii amul coono ndax tubaar fakal la macha allah ki nga xam ne moom moom waañ bi di ko diriger bàyyiwul benn taalibe lu koy sonnal ndax lépp lu war ci waañ bi bala nga koo soxla wàcc fekk nga ko fi ñëw togg nag taal yomb na. xam nga lan mooy mettil waañ waañ booy lijjanti waaye boo fekk tubaab fakal la macha allah ki ngay toggal tegu la benn coono lu dul li nga soxla loo soxla lu ne mi ngi ci biir waañ bi kooku amul coono sama doom amul coono sama doom yal nañu yàlla jàpp. tey tey tey bi lan lay doon togg bi tey tey yi bari na tubaab fakal la macha allah togg nañ ceebu yàpp nag togg nañ ceebu yàppi xar togg nañu ay ganaar togg nañu ceebu jëni jaga togg nañu ay mbaxali yàpp. lépp loo xam ne nii rek gan gu nekk boo ñëwee rek ñu war la koo berndeel rek lépp a ngi fi michu yaa ngi fi ganaar ku nekk waaw mënu boobu lu waay bëgg rek mënu yëpp a ngi fi lépp sur table <laughs> tout est prêt ku ñëw rek dox ba kii rek miir ñëw <laughs> waaw ndax borom loolu lay toog xam nga li muy togg toggalu ko boppam toggalu ko kër gi ndax bu doon toggal boppam la kër gi kon du doon ay fanweeri ak juróom ñeen fukki mbana yu ñuy togg pour doomu aadama ak jullit yàlla pèlerin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi maamam sàkku moo tax mu di ko teg kon yàlla yàlla jàppale waañ dara banque dara jeexu fi yéen ñaanal yàlla doom gudd fan gu ànd ak wér yàlla barkeel seen liggéey ndax nii ngeen di def wàññiwul dara yokkute rek la yal na leen yàlla defal yokkute ba ca kanam a kanam a kanam a kanam ak seen président seen directeur ak yenn personnel beeg lépp yàlla na leen yàlla def ay magin islam yu barkeel. fi nag euh, taalibe yaa ngi nii di pour gis xalif bi ziar ah boo ni nga ko gisee nii ñu ngi ñu ngi nii di ran doomu doomu xalif bi ñu ngi koy ngi koy gis waaw doomu xalif baa ngi nii di génn donc euh, ñu ngi xool ñu ngi xool lan la ñu mën a rapproché woo pour am euh, quelques éléments mais daal taalibe yaa ngi fii bëri fi lool lool lool pour gis xalif bi.